salaamaaleykum maa ngi nuyu di leen ziara <laughs> di leen ndokkeel di leen wax série Madior e neex na lool sax parce que am solo la daal yi war nañ see jàngat képp ku koy def war nga sóoraale di wax ci tamit ci tonto libaas nit ki bu la wóolu danga kaa war di wóolu moom ba jëlawu béy la am xa béy la xaw ma xar daal mu jox la ko ne la dama saraxel ma saraxe ko rek ngir yàlla te yàlla tax mais di jëm si ay dibiteri yi quoi mel ne ko sant Seck xam nga rek moom mooy loolu. asalaamaaleykum waaw man sëriñ bi da am na ma rek li métti na mu torop torop torop mooy naar moom tout le temps day am dëgg tout le temps naar day am dëgg day am leen di nuyu bu baax. di yéen waa lu xew TV site bi di leen ñaanal rek euh, ngeen am télévision rek asgor am ku baax di am rek yàlla ngeen ko am di ñëw ci série bi nga xam mooy joor maa joor ak joor hmm, franchement série bu neex la waaye man de ni mu ni mu ni mu jugtee ni bi ni muy tàmbali ni nga koy tàmbali sa woote quoi ndox dafa yomb trop dafa yomb trop ndax joor wër wëratu mën a dof si wëratu mën a dof quoi parce que film bi ñu ngi ko tàmbalee yàq waaw bu yeboo daal xaw ma nan lan mën a defee ba joor tane nekkaat ci sagoom après ñoom naar si boppam bi gis nga ñu ngi tàmbalee am problème ndax parce que. Euh, firma dafa am nu mu war a demee parce que wër sa demee kenn di am ndam rek normalement naar war nay mën a am ay defet comme comme tey maajoor ni mu def ak papaam parce que loolu euh, si nekk na loo xam ne day gën a neexal seulement bi quoi waaye joor moom et puis dafa war a tanewaat donte yaayam dee na yaayam bim mu dee moom waru woon dof affaire war na ko jàpp ni rek après mu nekkaat nit quoi ko defee. ñu fexe ba découvrir ki nga xamante ni moo def jëf ci bu ko defee film bi continuer waaye moom bu dofee nii quoi après neex normalement maa joor war naa xam effet yëpp moom papaam ñu continuer naar ci boppam ñu tëj ko walla moom ay problème si ñu xam ni yu bon yëpp moo ko def après film bi continuer quoi waaye nii ñu ko bëgg a nii. ah xam na xëy na si ñu ngi si waaye nii moom doxul de si loolu daal amoon na ci xaat waaye daal amul solo doole puis naar moom ku bon ku bon la ku amu ci dara si doom ji sax xëy na doon topp yaay ndax yaay ak doom ñu jege waaye bi mu demee ba xam ni ëpp na ndax képp koo xam ab jullit nga rek lépp lu day am rek loolu da nga ciy da nga ci dégg lu tax euh, yaay moom mu jural tàmbal di rëcc waaw yaay moom moom ko panda bandi la àdduna moo ko dikkal waaw amoon nañ si wax waaye daal moom joor moom dafa war a gaaw pare si li nga continué moo tax mu ne waaye instant bu dafee rek continué ko rek lu neex quoi wax di siyaar ñëpp di jégalu bu baax nag ci kàddu yi bi luy defar rek moo tax may wax quoi salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ah, na ngeen def waay waa Lu Xew TV naka yitte yi yéen a ngi si jàmm ça va bien ah waaw ñoo ngi euh, kontaan ci série bi ah série Madior ak bi am na sens trop waaw man nag maa ngi noog sut mais daal vraiment ñu ngi koy tund fi am na sens ko parce que li tax mu am sens mooy wala pexe yu bon yi nit ñi pexe. nekk ci biir këru pare sa këru sœur sa këru frère du moins di fa ay pexe yu bon te yooyu am na ci réalité la bon waa ji aussi mel ni ku xamul lu xew xam nga bon doom ji bu ñëwee di ko expliquer parce que moo xam na li bàjjen bi créé muy kii mais moom moom du du jëm a comprendre xam nga yëpp yeete la quoi dañuy yeete rek pour en cas nit boo yore sa kër xoolal nga yor ko amee. kër yi borom moo koy téye en main quoi mais am na yoo xam ne am na ay failles yoo xam ne waroon nangu muy am sa biir kër waaw dañuy yeete rek quoi vraiment am na sens trop waaw am na sens quoi parce que vraiment nu ñu couple yi bon couple ak kii daal euh, du moins euh, Dior ak Madior daal moom couple bu ma neex la moom. waaw asalaamaaleykum en euh, fait maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jaajëfal. série bi ni wax euh, Madior ak Dior maa ngi nuyu bépp artiste ak actrice wax dëgg fa neex yàlla man film bi depuis ba mu commencé ba léegi mosuma ko arrêté benn yoon boobu léegi maa ngi koy suivre des fois sax dama war di xëy huit heures mais damay toog jël sama temps ba ñu dugal ko ci internet bi des fois ay deux heures du matin laa koy seetaan des fois ay une heure du matin laa koy seetaan saa yu ko dugalee ci net bi rek dama koy seetaan bien avant parce que dafa nekk série bi nga xamante ne c'est intéressant parce que tey li société bi di di murmurer di toog ñii di toog seen biir nekk di ko murmurer wala di ko def tey amaana ni tey loolu lañuy ñuy parce que dafa mel na Madior ak Dior c'est une moyen de communication te man dafa doon série bi nga xamante ni wax dëgg yàlla dafa ma neex trop rawatina ak joor ak Madior te yaakaar naa ne man nekk naa seen fans bi nga xamante ni pour l'instant sama àdduna gis leen rek gis maajoor ak joor rek yaakaar naa doy na lu nekk ci man su ma ko mënoon am wallaay din ma neex te aussi yaay joor moom li ko gars yi def moom métti na trop parce que lii mu naan dëmm rey la ba pare jaale la mais tamit noonu rek la mënoon a demee ci film bi parce que tey euh, yaay joor tey bu ko Pape Madior takkoon te Pape Madior dafa jàpp ne ki ni jabaram instant yi dafa génn àdduna alors que jabar ji génnul àdduna dafa demoon juste disparaître te lu mu disparaître yëpp rakkam moo ko ko teg te xamul woon nu mu demee te amaana ni tey dèjà maire bi fee feeñ si film bi imagine tey bu takkoon yaay joor après euh, yaay maajoor ala kulli an day ñëw te bu ñëwee boobaa film bi day xaw am tuuti complication te day am contrainte raison pour laquelle man ma gisee ni da ngeen joué da def sous forme ko yaay maajoor yooyu dimanche yaay joor mu décédé bu ko defee yaay majeur ndax trop ou day ñëwaat te bu ñëwaatee foofu noonu secret bi dina gënaat feeñ te boobaa day day doon secret si biir secret parce que de un dañuy posé maire bi la moo tax mu génn kër gi de maire bi dina waxoon ñëwoon si kër gi kii ni que major major nekku fi xam nga dina xawaat di dina amaat yeneen tem ci biir thème te yaakaar naa ni ngeen ko doxlee tamit doon na li nga xamante ni man lu lu neex la ci man aussi tamit lii laa ci gis te am naa ne que ni film bi daal doon na film bi nga xamante ni franchement parlant man neex na ma trop te aussi daf may yee ci lu bëri ci àdduna te aussi daf may xamloo ci lu bëri ci àdduna bien vrai que ndaw laa maa ngi ci àdduna bi mais film bii nigin li may apporter pour l'instant nii non yàlla sunu borom rek ko xam moo tax du ma ko mos a tardé du ma ko mos a tardé léegi-léegi nag laa doon laa doon dugg xool ba xam envoyé na ma kii far ma gis euh, ñu def juste benn genre résumé ci film bi moo tax ma ne xaaral ma dugg participer mais daal guddi yi su ma mënoon gis Madior ak Dior wax dëgg yàlla xamal leen ne leen carrément seen première fans mu ngi nii maa ngi tudd Moussa Diop maa dëkk bëri richard mais pour l'instant maa ngi Dakar parce que fa laay merci encore une fois de plus je vous remercie et bonne continuation. asalaamaaleykum man moom damaa dugg YouTube léegi après ma déglu vidéo bi Madior ak Dior metti na trop yaama yaaya moo nekk koo xam ne naan moo nekk koo xam ne ala Dakar jiital. lu mu wax yaama rek yaama moom lay def lu mu wax yaama moom lay def pare dafa papa Maajo Dakar la lu mu wax papa Maajo rek moom lay def instant yii yéenewul jool jam yéenewul Maajo jam mu ngi def loo xam ne surtout si loo xam ne buggul jool ak Maajo sey lu mu bëgg yaama ak Maajo sey daw na yaram vidéo ko seetaane ku nekk yaa ngi jooy ku nekk yaa ngi xalaatu nekk te lii ñu def nii émission théâtre bi Maajo ak jool am na si biir kër am na waajur ñoo xam ne tey bu ñëwee may jëkk dañu dama nga sey koo xam ne am na alal ba a mar damaa nga seet wut copain boo xam am na alal di la financé xoolal nii rek vidéo bi nu mu dawee yaram vidéo bi dana yaram ku nekk ku seetaan yaa ngi yaa ngi jooy te jigéen jigéen moo nekk loo xam ne dafa fo moog naa sa morom jigéen doo ko yéene mukk lu bon mu ngi nii yaayu ma jooy mu ngi nii dee na jooy mu jooy ndof na maa jooy am na problème yaama daal yaama yaama tax na yaama tax na ñun jigéen ñi suñu day mu ngi yàqu si deekee kenn xamatu ni nga war def te vidéo ku ko seetaane sa yaram mu ngi ciy daw sa day tooy da ngay jooy dangay ngay jooy mun naa nekk jool xamul sa yee papam yaayam rek la xam yaayam téye ko ñaaroo bëgg yaayam ba bëgg a dee naa xoolaat boppam parce que yàlla affaire bi métti na pare naar naar moo loolu naar day tax deru jigéen naar yàqu deru jigéen dañuy wax carrément dafa yàqu deru jigéen yi moo tax ku seetaan vidéo sa xol bi day tooy billahi wala vidéo bi théâtre waaw maa joor ak joor <laughs> macha allah macha allah xale yéen a tukkal jamono yéen tukkal jamono waaw bàyyi sama xarit bi ngeen di sànni xeer waaye ah man naar naar laay wër naar xoolal affaire bi yow la yow laay wër man. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi waa lu xew TV nuyu naa leen. den jaar baax di bëgg euh, participer Madior ak Dior ci laa leen 34 épisode bi waaye neex na trop macha allah neex na trop di wax ne naar moom àdduna ci kanamam lu yàgg yàgg yàgg balay de dina ko gis dëgg la róor la waaye róor bi ñu ko jox moom macha allah mun na ko róoram trop waaye róor bi dafa bon dafa bon trop te lii nii lépp nit ñaa ngi koy dund. lu bon lu ñaaw lu am lii yëpp ñaa ngi koy dund waaye ak ku mënta doon rek yaa ngi koy dund wala ngay yéene sa moroom loo xam ne du jàmm du li nga yéene sa bopp moom nga ko yéene lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg nag day tourné waa sa kaw àdduna moom bul la day romb te ku ci jëf lu bon du nekk bala ngay dee da koy gis ndax yàlla xaaratut ba àllaaxira muy fay muy wane jëf déedéet xaaratut ko bala ngay dee la lay won lépp boo dee mbugal bi doog a ñëw ci yow nañ bàyyi suñu xel ci yàlla. delloo suñ xel ci yàlla te xam ne àdduna du dara yàggul diir bu gàtt la mooy àdduna kon nañ bàyyi suñu xel ci yàlla di rafetal ndax àdduna bi rafetal rek moo fi nekk loo gis jàpp lépp yàlla la lu ñëw jàpp lépp yàlla la lu bon amul benn njëriñ lu mu yàgg yàgg yàgg boo ko defee mujj ga du neex mujj ga dafay naqadi nag nañ delloo war suñ xel ci yàlla bu baax a baax. te xam ne àdduna moom nekkul dara lu ndaw la ñu ne bisi si yomal xëyam réccu dina am ñëppay réccu ñu def lu baax dina réccu ñu def lu bon dina ndax booy def lu baax di nga réccu nga ne su ma yëgoon gën koo yokk sooy def lu bon tam di nga réccu ne su ma yëgoon def lu baax te fekk day wees moo tax loo def ci lu baax rek bu ko bu ko bu ko naw loo def ci lu baax rek yaakaar ne yow dafa goo dara gën la yokk sali ci loo nekk yeneen ci jàmm tey moom film bi dama triste torop metti na torop torop torop torop torop non film bi daal metti bi moom foo ko natt rek weesu na fa yërëm naa joor torop torop torop torop torop torop wax dëgg yàlla day na waar mais ci loo nekk yow yaa ngi ci jàmm nag tey muy neex asalaamaaleykum asalaamaaleykum ak sama waa groupe naka mu nekk ba yenañ ci jàmm rek ça va man la Rama naka théâtre bi tey théâtre bi wax dëgg yàlla tey daw na yaram daw na yaram théâtre bi moom wax dëgg yàlla dafa daw yaram théâtre bi moom saa yow ko seetaane rek foo jaar da ngay joo dangay jooy laaxe da ngay jooy man daal naar xaw ma lan la bëgg naar rey na yaayam léegi joor moo ko dese léegi ah, laab daal moom xaalis alal man daal xaalis daal xam naa xaalis daal jaral na ko lu nekk de jaral na ko lu nekk ba léegi léegi fi mu toll nii xamatul léegi lu muy def mu ne léegi xaaral ma joor léegi ah mais tey kontaan naa si maa tey tey maa joor nu leen def tey kontaan naa si ñoom trop trop trop. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi la nga def ana waa kër gi tubaarkalla alhamdulilah waaw sa wax rafet na xaalis diggante bu bu yàqu rek xaalis da ko yàq ca gone gi moom yal na yàlla musal ci moom liggéeyam rafetut doxam rafetut daraam baaxut képp ku yaay daal yal na yàlla musal ci jooju yaay. yàlla na ci yàlla musal kii daal yàlla na yàlla musal ci moom sëñ bi yàlla na yàlla musal ci moom man de muslu ci moom laay def man lii wutee na xaalis kenn du ko def yàlla na yàlla musal ci moom daal ci barkeb sëñ Tuuba foo mu jaar daal yàlla buñ fa jaar dara jay maam jaaroon asalaamaaleykum Lu Xew TV ah maa ngi ñëw nag di naar parce naar dafa fit na rey na doomu yaay jàmbur perturbé doomu jàmbur comprendre ngeen naar xamuñu lan lañu war a def naar naar baaxul ci kër baaxul ci àll waaw naar da yàq société da yàq kër genre naar yi dañu perturbé nit di di détruire doomu jàmbur parce que alal àdduna jaral na ko lu ne waaw ndax naar mi déjà amul jom parce que mi ngi def lii waxatuñu mu ne day rey day reyaat joor doom ji ragal na waaye mooy yokk poussé doom ji parce que lim def moom moom xam naa teewoo taa dina feeñ ndax mosoo gis kuy def lu bon ba jëlee ci lu baax kon waa dikk dañoo war a gaaw recherche naar jàpp ko def li war ci moom parce que naan bi bu ko bàyyee dina gën a exagéré. maaleykum waa kër ki maa coor ak ca nuyu naa leen ñëpp yéen si jàmm waaw. ma ne film bi moom macha allah daw na yaram man. ah maa joor instant yi dama koy yërëm torop maa ko dama koy yërëm torop billaay muy dund metti na. waaw salaamaaleykum na ngeen def bàyyi na ngi ci jàmm waaw wax nga dëgg man de maa joor ak joor moom bi ma ko commencé suivre yàgg na neex na torop waaye film théâtre bi da ngay dem ba ci yàgg sa xol bi mooy tàng ndax naar na yaakaar naa ne jigéen. waru jël moroomu jigéenam di ko metital yenn mettital yi te man daal li ma ci gën a naqari xanaa naar moom du feeñ naar dafa war a mën a feeñ nag mënul plan bu mu def day dem te maajoor tamit papaam war naa mën a déglu li ko maajoor di wax ndax mu ngi koy junj mu ngi koy junj junj bi mu koy junj nag dafa waroon di bàyyi xel tuuti xam ndax man maajoor mi li may wax dëgg la wala du dëgg neex na torop moom neex na torop man duma ko tardé benn yoon su ma ko tardé sax damay dugg YouTube seetaan ko duma ko tardé ak ma mante fekk dinaa ko seetaan neex na torop jëf waaye nekk leen ci jàmm. waaw salaamaaleykum Xew def maa ngi bëgg xaalis bëgg xaalis doon ko jàpp moo waral moo waral xaalis. baaxul soo ko jiitee sa àdduna mën si am ay tolof tolof gis nga moo ko waral yéen lépp lu koy def yëpp te mu jëm baax deen ko xool rek si kanam man noonu laa meloon au début série bi xam nañ si xew yëpp moo ne si kër yi ñu si wax kër yi ñu ngeen def yéen ci jàmm bu baax a baax man de li ma yaakaar mooy joor moom ku ñoom maa joor la jëm loolu laa yaakaar mais moom du dem na moom man moom yaakaar naa loolu moom est-ce que dama ko ñoom maa joor man de loolu laa yaakaar loolu mooy sama xalaat man.